salaamaaleykum yéen mbokki Sénégal mbokki àddina man la Penda Silla maa ngi leen di jox dig daje samedi bu ne ci 19h ci émission bi ñu naan tête à tête tête nag dinaa ci dalal gan gu waxtaan ci thématique bu nekk bu leen ko tardé samedi bu ne la ci 19h ci sunu Label TV ci xolu Sénégal.